sunu famille bi dafa meloon ni am na lu ci dugg lu koy rax kon sëñ Mountakha Bassir bu wootewaatee bis bi dafa bëgg ñun ñëpp ñu dundaat delluwaat ci yàlla sama borom ndax moo fi ne fii kan moo fi ne yàlla yonante bi sëñ Bamba maam Cheikh Fall Abouri Diallo laay ñun dañuy sant Serigne Touba ñun ay murit lañu jërëjëf Serigne Touba ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci Seydina Mohamed ñuy sant Serigne Touba di sant sëñ Mountakha yàlla na fi yàgg tëwee yàlla na fi yàgg tëwee yàlla na nu yàgg sëñ Mountakha jërëjëf sëriñ Touba jërëjëf waaye tubaar fakal la bés bi dafa neex bésu jullit la ñu woote te man ko sopp sëñ Mountakha laa bee dafa fekkoon ma feebar waaye sama xol sedd na guy jërëjëf sëriñ Touba jërëjëf sëriñ Touba ñun ñëpp benn lañu. mooy lépp mooy lii suñ borom mi nga xam ni moo ko may mu ko may suñ borom du may di nangu te da koo liggéey ba yàlla defal ko kon yàlla yàlla defal sëñ Mountakha mu yàgg fi te wér te yéen ñi nga xam ne yéen a taxawu bis bi suñu borom defal leen tawfiq ak taysir suñu borom defal taalibe yëpp jàmm ak xéwal yi ñuy joxe addiye te Touba ca kanam nag seen xel dañ cee jàpp ñu gën cee góorgóorlu ci barke Sëñ Touba. sant di sant Sëñ Touba bu wér a wér a wér ñi sant Sëñ Touba ndax moom li yàlla may da ngaa mayul kenn Sëñ Touba nee na kafaaniya fegal na ma albaaxi aji des ji almamaata dee sarmada ba faaw. loolu suñ tubaa rek la ko yàlla may muyu ko keneen nag xoolal la commencé ci aadama ba ci ki mujj ki yàlla di bind suñ tubaa li ko yàlla may muyu ko keneen ñoo leen di siyaar di am mbégte tey ci jotaay bi sëriñ bi Muntaxa moom suñ Basiru ñëw gane si ko waa Dakar muy sagum ñëpp di ci jaajëfal mbokki taal bi yëpp ñuy ñëpp jóge ñëw wuy si ko di ñaanal suñ taxa lim yéene liggéey suñ tubaa lépp mu defe ko li kaw njortam